a quick update about Mr Abdoulaye Thiam ak Aïssatou mu sell mi di leen xamal ne ginnaaw bi nga xamee ne ñeneenti looyam mi kenn ki di suma xarit keneen ki di Bamba Cissé keneen ki di Abdoulaye taal keneen ki di xadim Kebe biñ demee fen ne Aïcha Fati doomi actual imam ratib bu Gambia la ñu xam ne loolu du dégg ndax imam Thierno Ka mooy actual imam ratib papi Aïcha Fati imam Abdoulaye Sadia Fati ku baax la woon yàlla yàlla jéggal ko te yërëm ko nekkatul ci àddina bay doon imam ratib actually biñ fenee loolu den demaat dugal ci office jooj bi ne Aïcha Fati moo nekkoon Gambien moo nekkoon représentative Pastef in Gambie ma xamul nag ku dul nan la mën a représenter Pastef fen yooyu bi biñ ko indee ñu xëpp ci bomb den dugaloon pour liberté provisoire ay Fati dem génn jooj bi reject na ko loolu barki démb la jooj bi reject na liberté provisoire liberté provisoire mooy neen la bàyyee ndekoo gum nga dem doxi sa soxla afta ñu rek la code bi loolu jooj bi reject na ko so as at now képp ku doon celebrate ne win ay sa dafa ñibbi ajuma bi ajuma bële man ma taxawoon ci benn place mooy su miracle amee tout le monde sa fi dese Aïssa loolu mooy dëgg tey ay ba tey mu ci kaso gi xamuñ ban déet la war a am koot xamuñ kañ leen ko àtte ci ñaari charges benn bi looya si caami dugal neen appel beneen bi ba tey xamuñ kañ la mun na faa toog foo mën jooj bi door koo ooyaat te foog ñëpp teew ñi ñu tudda yëpp ñu laaj leen lan leen ci xam muy Abdoulaye Thiam ci boppam jëkkëri Aysa bi ci boppam Fatou Fati Awa Fati Zeynab Fati ak ñeneen ñëpp foog ñu teew ñu déglu leen dégluwaat leen su jooj bi mutalut daf ko notifier dafa toogaat at another six months muy wan ya te ba léegi jooju jooj men amut lu mel nii nag laa doon wax di ko xeeb xeex ñépp takk seen laay fi Cheikh nii la mel Cheikh ne la mel den ko fay lele leen ko fay léegi ana ñi doon def all the noise in the social media Aïssa is awa Aïssa ku wax ñu saaga sa ndey traité la xas la taf la léegi da nga leen déggati bi julli tabaski jotee seen kër leen toog di dubba seen àdduna ba mokk lakka seen yàppay lekk ba suur naan ba màndi nekk ci leneen waaye tey ñan ñooy jaabante yooni dakaar mbokki Aïcha yi ñan ñooy togga di indil Aïcha lekk mbokki Aïcha yi kan moo gisul jabaram jëkkëri Aïcha moo tax su problème amee mun neen ko solfee neneen lu dul personal attack towards other Gambians du dëgg du yoon fii saaga neen fi ba taf doomi jàmbur saaga ko saaga neen fi ba taf yaayu jàmbur saaga ko ci Aïcha Isawa Aïcha te bu leen fàtte 2016 bi Gambie ni doon xeex ak Yaya Jammeh ay saak family members T-shirti Yaya Jammeh leen sol for their personal interest which I agree because man mii di wax niti interest la bu leen fàtte ne bi Abdoulaye Thiam di ñëw di joxe ay million noise bi melutoon ni kenn yëgut ko ñoom ñi ko séq ka lekk kon the so-called feminist féministe énergie ak lu kenn xamul su jigéen amatee problème doxee leen ci doxini aada Gambie cosaani Gambie and our beliefs nga xam ne ki ngeen xeexal di ngeen ko dimbale waaye ku fi musa am problème ñu xeexal la ñàkk nga sa xeex because duñ dee ñëw genuinely to help and support dañoo ñëw to promote their agenda to promote their platform to show people that they are well educated dañuy jox educations ak big phrase ak grammars yoo xam ne amalu ñu benn njëriñ we have our own way of dealing with things dealing with our matters in our own way ñun den ko am as Gambian or as Sénégambien waaye du nii ngeen koo defee ku ngeen musa support nit yi jéppi neen ko xeeb neen ko bañ neen ko te amul dëgg tey so fekkoon ne mbiri problème ay safaate bi den ci dugga niñ ci war a duggee coow li wallahi du egsi fii waaye tey biir bi ngeen wax na dëgg su dee ay sa dafa biir fala moo toog ba wusu ne doom ci kaso mu nekk di foos Gambien jigéen bu mbaraan di mbaraan di mbaraan ba fall to one of her victims trap wusu ne doom ci kaso ki en tant que doomi imaam subhanallah lii ku ko xoolewut sa bopp mun ngaa takk sa life di xaste ka yéen ñëpp yéen a ngi si seen agenda di liggéey di wàcce di clock in di check out di am seen xaalis di toppatoo seen soxla ana Aïcha ñaata gor ngeen saaga ba nit ñi jéppi Aïcha ngir yéen ñu bari ene neen Aïcha kaso tey yéen yéen a tax yéen ñi doon taxaw ne da ngeen ko jàppale ni ngeen ko defee du noonu ana mu tey bi ngeen tegee waxi Aïcha dem leen seen plateforme si ay 48 views 400 300 100 sax mënatu leen ko am moo tax ngeen ci doon ut bës waaye man Cheikh Ahmed lépp lu ma ci mos a wax nii la amee ajjuma bu ngeen wax ma leen du am su ngeen ne dañoo àtte ma ne leen juun rek ñu dem ba juun dina génn ma ne leen su miracle amee mooy two months waaye without miracle dese na ko full year full year bi yëpp ba 2025 Aïcha na nekk foofu wax ji maa wax éneewu ma ko ko waaye mooy dëgga kon mbokki Aïssa Fati xam leen na seen doom moo nekk ci kaso yéen ñi nga xam ne yu doon support what Aïssa did but you sympathize with her as sensible human beings which I believe I am part of man ànduma ci lu Aïssa def duma ci musa ànd ndax den am doom yu jigéen am rakka yu jigéen tollu ci buggante bugga suñ demee ba ci buggante buñ buggante koo xam ne daf ñoo xas xeeb ñu lekk ñu yàpp ñu suñ doomi jigéen yi bëgguñ ñu def ko keneen suñ doomi góor yi bëgguñ ñu def leen ko bëgguñ ñu def ko suñuy nijaay bëgguñ ñu def ko suñuy baay bëgguñ ñu def ko suñuy brothers then we cannot support this it's not right anywhere in the world waaye nag yërëm neen ko jigéen la yërëm neen ko ñu ne dafa biir yërëm neen ko si sa Gambian sister dëgg-dëgg half Gambian la parce que yaay ji égyptienne la but that doesn't matter we are all African we are all human being nen leen wax Aïssa mu fay xaalisi jàmbur li des li yëng ci Aliou Bey li yëng ci Fatou Fati ñu ngi ko denc mu ngi ci palaas bu leer waaye ñoom ñoo taxaw wax ne duñ jégalu bi ko suñ jégalu dañoo tuuti ci kanami askani Gambia duñ fay Aïssa daf ko tëdda ba mu jeex négociation yi ñu doon mu suma digg loxo bi Pape Sané bu Walf TV moo àndaa Fatou Fati ci benn officier procureur procureur boobu moo leen doon jàppale di leen taxaw yépp leen xam waaye maa ngi leen a jox a very big alert dañoo change all the judges the prosecutors in Sénégal very soon yéen Fatou Fati yow lay wax fi nga àndoon ak pap Sané ci office boobu ci kooku waaye kooku suñ ko ceeñee nag ñi ñoo indi nekka ñoo xam ne amuleen accès ci ñoom lan ngeen a def dafa gën a métti wax laa wax ci biir wax nag <laughs> nandite la du ma ne wax mu eeg uh-huh. waaye ñu xam kuma communication they noo very well what I said and I don't say it su ngeen ceeñee indi ñoo xam ne amuleen access to their offices to their numbers you can call those people <laughs> comme fa ngeen ko teg lijjanti ak réglé nu moo mujjee te gis nga ni Gambie ni tegee mbiri Aisha fàtte ko move to another thing waaye Aisha didn't forget herself in the prison lii daal li ma ci xam encore une fois ma waxati ko whenever you people are ready for negotiations I can facilitate it without five minutes within five minutes su ngeen bëggee fay xam ngeen fa xaalis bi nekk ak or yi <laughs> am na lu dem am na lu denc am na luñ denc because the bank statement support this allegations I just made xaalis bi mu ngi foon 2021 bi coow li amee la génn yëpp benn dee la génn mbaraan du liggéey du métier ndax ngor ak ethics nanguwut ko fay leen xaalis yi jàmbur bi delloo leen ko alalam gàcce gi ni ngeen gën a demee mu gën a gudd te gën a métti ngeen toon in another thing Aysa yàgg naa mbaraan ba tedd te musta dem so waaye bii du ci génn de <laughs> wallaay du ci génn wallaahi du ci génn